bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa ashaabihi sawirwan ba tamkin mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara ci bis bu tàdd bi ñu nekk yowmul jumaa di leen ndokkeel ci bis bi ak ci weer wi weer wi nga xam ne mooy weeru safarul alxayr di weer wu màgg wu am solo ci biir diine waaye yu am solo ci biir yoonu murit muy weer wi nga xam ne am na ci bis muy fukki fan ak juróom-ñett Cheikhul Khadim dafa amoon xéewal yu rëy yu ko ci sunu borom defal xéewal yi nag rëy ci moom lool ba àgg foo xam ne lottu na ci sant ko sunu borom tabaraka wa mu digal mboolem jullit yi ak mboolem taalibe yi su dikkee ñu dimbale ko ci sant la ko ci sunu borom tabaraka wa taala ngi ci xewal yu mag yooyu mu ko defal saa boo xamee ne bis boobu dikk na nag day war ci nun nuy fàttali sunu bopp di fàttali mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yi ci eh, xew-xew bi ci boppam lu ko sababoon ba tax ñu di ko màggal ak màggalin wa ci boppam nan lañ koy defe loolu nag niñ ko waxee léegi ci bayaan bi day mel ni buñ ko dee wax sabab bi ak nan lañ koy màggalee dañuy delluwaat ci cosaan delluwaat gi ci cosaan nag mooy ñu dellu ci ki nga xam ne mooy cheikh Mouhamadul Fadil radiallahu taala anhu doonoon xalifa cheikh Ahmadou Bamba ci jamono yooyu mu njëkk a woote màggal gi indi ko tuubaa ngir gis ay xéewal yu bari yu nekk ci defee ko fi ndax daanañ wax ne sëriñ Abdou Xaadir radiallahu taala anhu daana wax ne def lu baax day baaxee na fu waaye sakkane na Tuuba loolu nag wax ju rëy la joo xam ne ju mat a xam la ju mat a sàmm la jëf ju rëy baax na fu waaye sakkane na Tuuba kon andi gi ko Cheikh Mouhamadul Fadil andi Tuuba ndax daanañ ko def lu jiitu loola sëriñ bi dafa digle woon rek bu bis bi ñëwee fu waay nekk rek nga def luy wone ne yaa ngi sant yàlla ci bis bii ngir sant le ko yàlla ci ci loolu ci jamonoom loolu lañ doon def bim fi jógee Cheikh Mamadou Moustapha nekk fi loolu lañ doon def ba Sëriñ Fàllu ñëw nag ci xilaafaam la woote ne nañ koy defee si Touba nañ koy defee si Touba kon loolu Sëriñ Abdou Khadir waxoon day mel ne loolu lay dabu sakkan gi ak ak yaatu gi moom la ci jublu woon ci biir xutbaam boobu nag wala xitaab boobu leeral na ci lu bari loo xam ne saa bu màggal dikkee rek ñu war di ko fàttali ndax leeral na ca lu tax ñuy màggal bis bii leeral na ca lañ ca war a def leeral na ca lañ ca wërta def te loolu rek mooy li am solo ci sunu waxtaan day mel ni wax na ca njëlbéen ga ne màggal bis moom yàgg na ci jamono xeet yépp ak diine yépp xeet wu ci ne ak diine ju ne am na bis bu muy màggal moo xam bisub bànneex la wala bisub naqar la mu di ko fàttaliku ngir lu ko ca yàlla defal wala lu ko ci yàlla jañal loolu nag xeet yëpp ko bokk diine yëpp ko bokk kon bisub Seexul Xadim bii day daal di dugg ca bis yooyee nga xam ne moo moom la xeet yëpp di màggal bis la boo xam ne sëriñ bi radiallahu taala anhu leeral na sabab yi nga xam ne ñoo ko waral wala sabab yi ko waral xam nañ ko ci taarix sabab bi ñaari sabab la am sabab boo xam ne bu feeñ la am sabab boo xam ne bu nëbbu la wala sabab boo xam ne zahir la wala sabab boo xam ne baatin la bu zahir bi nga xam ne moom lañ xam mooy xam nañ ne sëriñ bi radiyallaahu taala anhu bi mu ñëwee ci jamono dafa dajanteeg colonialiste si nekk ci senegal ilif ko sëriñ bi am projet boo xam ne moom la bëgg a doxal ci biir jullit yi tubaab bi am projet boo xam ne moom la bëgg doxal ci jullit ji ci sénégalais yi ñaari projet yooyu nag di yoo xam ne dañoo am contrainte dañoo dañoo dañoo dañoo safaanoo mënuñoo ànd te tubaab bi boobu moo yor doole ji moo yor doole saayir ji moo ko yor tubaab bi nag xam ne projet sëñ bii kat feeg bi ngi fi nekk projet bii moom du mën a dox mu def ay pexe ba tuumaal sëriñ bi ne dafa bëgg a déclarer guerre sainte wala jihad contre tubaab yi loolu lañu wax te loolu la ko waral ay jaxase la yoo xam ne ay ay nit yu ko jaxase moo xam ay buur la buur yi adduna yu fi newoon mooy caddo yi wala sëriñ si fi newoon te sëriñ bi xëy na génne leen ci seen doxalin ndax na muy doxalee bokkut ak nañ daan doxalee loolu lépp tax ñu jaxase ko tubaab yi ba tubaab yi tuumaal ko ne kii daa bëgg a def guerre ca loolu lañ tuuma joojee ca lañ moom lañ saxal ba woo ko ndar mu jógee baar yi ci bisub fukki fan ak juróom-ñett yi dem ndar wuy ji borom ndar ba mu demee ba àgg ñu atte ko atte bu jeng boo xam ne dara yoon jaaru ca ñu daal di koy euh, saxal ne dañ koy génn réew mi yóbbu ko ci barab boo xam ne bu fa nekkee bu ak ruwam génnut adduna it lim doon woote danañ ko fàtte balaa dellusiwaat lim doon woote danañ ko fàtte lépp ñu daal koy jël yóbbu ko Gabon ak ya xew-xew yëpp ya ca jaar yëpp yoo xam ne euh, taarix nettali na ko euh, nettalikat yit ñu ngi koy nettali loolu mooy sabab bu feeñ bi nga xam ne ñëpp ko xam waaye sababu biir bi nag mooy sëriñ bi ci boppam moom lam bëggal boppam nee na moom booba ko tubaab yi yóbbu daa fekkoon mu am daraja bu rëy bu mu bëggoon ci boromam ndax bi ko tubaab yi yóbbu wax na ne amul daraja boo xam ne nit ku baax amoon na ko ci diine ci liimaan wala ci lislaam wala ci lixsaan te amu ko woon moom daraja yañ daan am ci diine yëpp amoon na daraja yee lakkoon na ko waaye nag bëtam dafa dafa rëy sëñ tubaab bëtam dafa rëy dafa bëgg rëy lu mu am rek ci yàlla xeeb na ko jàpp na ne war naa mën a am lu ko ëpp ndax yàlla li yoot lépp da koy joxe te yow ko dara kon boo koy laaj da nga koy laaj la gën a rëy ak la gën a fees bët sëñ Tuubaa nag ba mu làqee loola ba noppi am ko ci liimaan am ko ci lislaam am ko ci lisaan mu ne am na lu ko dese nag loo xam ne moom amagu ko muy imaan ju mat sëkk kamaalul imaan te mooy àgg ci suñu borom tabaraka mooy kamaalul imaan mooy nga xam yàlla dëgg dëgg xam ko wala dëgg xam yàlla xam nga yàlla ci moom wala kamalul islaam mooy am nga am yaqiin ci sa borom tabaraka wa taala kamalul ihsaan mooy nga àgg ci yàlla nag ba sa lépp di yàlla mu ne ñett yooyu mat gi amoon na ci dara waaye mat ga nag la amutoon te mat ga nag moom la xemem moom la bëgg ndax mat googee moo koy àggale ci gaa yi yàlla yu mag ya nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ahlu badr ahlu badr ña fekke woon xare badar jaay seen deret jaay seen alal jaay seen lépp joxe seen lépp ñoo ñoo ko fekke woon nag am daraja yoo xam ne yonent bi dem na ba ne seen puuritu puuritu fas ya rek moo man jëfi nit ku baax ku nekk pourris fas ya rek waxuma la ñoom seen ñaq seen dara waaye seen pourris fas ya rek moo moo raw euh, jëfi nit ku baax ñu bari sëriñ bi rek bëgg a bokk ca ñooña te ñooña passé nañ lañ defoon ba am loola it passé na loola mënut a delluseeti dootu dellusi sunu waroon xamal ko nag ne ko loola nag kenn mënatu koo am ndax la taxoon ñu am ko jeex na la taxoon ñu am ko jeex na jamono ja jeex na zuruuf euh, ya jeex na euh, jëf ya jeex na kon ku ko bëgg a amati nag danga da nga da mel ni da ngay sàkk lu jomb waaye nag am na la ko mën a maye ay jaamu du doon ay jaamu yàlla de du doon ay julli du doon ay woor waaye ay nattu la yuñ lay teg ay nattu la yuñ lay teg yoo xam ne day metti lool day tar lool ba dana àgg foo xam ne ñii ko mën a supporter du bari ñi ko mën a supporter du bari waaye sëriñ bi xamal boromam ne ko su fekkente roo gii gee gàddul nga ma ko ndax yaa ko moom saa roog gi moom su ko soo ko gàddoo leneen li ci des di coono yaram yëpp mën naa ko dékku mën naa ko dékku lu mu mën a doon rek mën naa ko dékku sëriñ bi jaayanteeg boroomam loolu ñu daal di koy sóob ci yëf nag bañ ko cee sóob nag ñu moom li waxal boppam mooy ba mu bëggee loola te mënu ko woon a am lu dul ci jaar ci ay loxo yi noonam ñu def ci moom lañ la ñuy def ci moom mu metti lool mu muñ ko munu ko woon a am ci lu dul loolu ci loolu rek moo ko mën a may yàlla nag daal tàbbal ci noon yi nag ñu daal di def loola ñuy def nag daal di koy jël yóbbu ko ci bitti nag eh, ngir moom mu am li mu bëgg ci boromam moom fa nekk nag ca diir booba la fa liggéey liggéey boo xam ne moo ko may loolu mu bëggoon muy kamalul imaan kamalul islaam kamalul ihsan gëm yàlla gu mat l'islam ju mat ak l'ihsan ju mat yàlla nag ba mu muñee loolu nag ba mu jàll nag suñu borom tabaraka wa taala nag ne ko nag ni ma la doon nattoo laa lay fayee ni ma la doon nattoo mooy saabu bu natt bi dikkee saa bu juróom-ñett fukki fan ak juróom-ñett ci safar dikkee damay dolli natt ba mu toll nam tolloon bu déwénaatee ma ko dolliwaat ko dolliwaat ko bay ba ba fii nga toll saa bu natt bi bu doon téeméer day ñaar téeméer bu déwénee mu nekk yéen bu déwénaatee mu nekk noonu la doon natt bi doon demee nga xam ne saa bu mosaan di ñëw dix-huit safar sëñ bi day séenu ne métti yaa ngi gën a yokk métti métti gën a ba mu defee loolu nag sëriñ bi daal di toog benn at nag bay séenu natt yi ne mi ngi ñëw sunu borom ne ko natt yi jeex na nattu yi jeex na léegi la pay gi moo ci des waaye pay gi ni nattu yi demee woon noonu lay demee ni nattu yi demee woon noonu la pay gi demee dama koy ful saa bu 18 safar dikkee la ma la fayoon dama cee dolli lu ñu toll bu ñëwaatee dama cee dolli lu ñu toll ba yowmal xiyaam loolu du dagg sëriñ bi nag nga ah lii nag may la goo xam ne moom nit mënu koo sant làmmiñ mënu koo sant kenn nit mënu koo sant mu waxtaanu bi yëpp nañ ko jàppale ci cant googu santale ko sunu borom tabaraka wa taala ci xéewal yu rëy yooyu nga xam ne defal na ko te amutub àpp mu daal digal murid yëpp loolu noonu ko sëriñ Fall waxee ci xutba bi fa amarahum tasrihan laa xan ndigal lu wér lu leer loo xam ne moom junj ko ko dara waaye da ko digle bu leer nañ ñi def ko deflu ko def ko deflu ko magal gi bi da koo def deflu ko moo ko njëkk def moom ci boppam digal murid yëpp it ñu di ko def saa bu dikkee fuñ nekk ak barab bu mën a doon ñu def ko fa ba ci jamono sëriñ Fall nag mu toxal ko nag indi ko tuubaa ngir sabab yooyu nga xam ne moo ko moo moo ko waral booba la ko murid di tàmbul nag di sant sëñ Tuubaa mu ne nag sant gi nag dafa am nuñ koy defee ndax sant yàlla jaamu yàlla la jaamu doo ko defee nu mu la neexe waaye da nga koy defee ni ko yàlla bëggee te yàlla na mu bëggee ko euh, euh, euh, sant yàlla ci farata ak sunna fa sant yàlla ci farata ak ak ak sunna wax na ko ci ci ci ci ci ci xasida yi ne ne dana ko sant ci farata dana ko sant ci sunna ñu ne ko noo koy sante ci farata noo koy sante ci sunna mu ne sant farata ak sunna mooy jàng alxuraan moo ci jiitu waaw lahu alayya shukru eh, lahu eh, shukuri bi quranin urattiluhu min saati lirtifai hooli wala na damay sant yàlla ci alxuraan kon danañ jàng alxuraan ngir sant yàlla alxuraan dañ koy jàngee bari na waaye dañ ko danañ sant jàng alxuraan ngir sant yàlla képp kon bu magal gi jigéen ñëpp kenn ku ne loo mën ci alxuraan ni ko sëriñ Muntaxa eh, yàlla ko yàlla bàyyi te eh, tam yàgg fi lool ni mu ko diglee kenn ku ne jàng alxuraan ngir yéene caa sant la yàlla sëriñ Tuubaa la nga ca man nga jàng ko la nga ca mënul nga jàngal ko te bégal ña koy jàng kon loolu benn xaaj la ci xeeti cant yi beneen cant bi ci des mooy cantu jàng zikar ak jàng xasida yi sëriñ Tuubaa yi zikar yëpp anwaawu zikar yëpp xeeti zikar yëpp mi ngi ci xasida y waaw bu dee ñaan bu dee jéggulu bu dee tuub bu dee lépp mi ngi ci biir biir xasida yi kon ñuy jàng xasida yi di ko sante sunu borom sant la sunu sunu borom euh, sëriñ Tuubaa zintul qasaida lil wahaabi ashkuruhu biha wali qaana maa qad faaxul anuni sëriñ bi nee na xasida yi may way lu tax ma di ko way ngir sant yàlla kon xasida nañ ko jàng ngir sant yàlla danañ ko jàng ngir ñaan danañ ko jàng ngir ko jàng ngir waaye danañ ko jàng ngir sant yàlla kon bu magal gi dikkee kuy jàng xasida yéene ca sant yàlla sëriñ Tuubaa loolu sëriñ Tuubaa moo ko moo ko digle waaye nag da nga ko sant ci lépp loo xam ne lu dagan la lu dagan rek lu dagan loolu mu doon wax naan la dalay ci ganaar bu ci gëléem mooy yi dagan yi dagan a jariñoo mooy yooyu waaw euh, euh, euh, bi kulli ma askuro bi kulli ma abaa waaw bi kulli ma abaa waaw waqaad lii li li rabaa waaw nawaytu shukraka bi kulli ma abaa waxtaarahu li waqaad li rabaa kon lépp lu dagan rek mën na si da cee sant yàlla kon ñett yooyu muy mooy ponk yi nga xam ne mooy ponk sant ci màggal gi jàng alxuraan jàng xasida yi nga xam ne làmboo na xeeti si kër yëpp waaye leele aw ñam ci ganaar ba ci gëléem ak lépp loo xam ne lu yàlla daganal la ak lépp loo xam ne lu baax la loo ca mën a teg nga teg ko ci xam ne loolu lépp da ko koo def ngir sant la yàlla sëñ Tuubaa waaye lii xam ne moom la Seex Mamadu Muntaxaa wax nag war nañ ko ci boole maanaam dañuy sant la yàlla sëñ Tuubaa waaye bu ñu ko nag sant sëriñ Tuubaa moom moom mi ñu defal loolu sant ko moom nag sant yàlla ngir santale ko yàlla waaye sant ko moom moom ci boppam loolu lépp lu am solo loo xam ne nit ñi war nañ ciy bàyyi xel te bu dikkee loolu Sëriñ Fallu waxoon ci eh, eh, xitaabam boobu rek mooy nañ ko sant te buñ ca boole lenn lu ñu sib wala lu luy po wala luy font lépp luy lu ñu sib rek nañ ko ci génn ba mu set wecc def ko ak cant kese dëgg dëgg cant ñu sant ko sunu borom tabaraka wa taala bu ko defee danañu yaakaar lan lam diggee ca cant ne la an shakartum la azidannakum bu ngeen santee ma dolli leen ndolla ndolla day tom sotti ko ci sunu kaw ba atunay tukki ñuy sant sunu borom sunu borom dinu dolli ñu sant sunu borom sunu borom dinu dolli ba yowmal xiyaam bu ko defee ñu am ngërëmal sunu borom am ngërëmal cheikhul xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu dafa am ñu bari ñoo xam ne dañuy wax ne cant gi bi fi sëñ Tuubaa di nekk daawuñ ko defee Tuubaa waaye bi fi eh, sëñ Mudu Musaa nekkee noonu ko sëñ Tuubaa defoon la ko daan defee bi sëñ Fallu ñëwee la ko andi tubaa waaye andi Tuubaa googu sëñ Tuubaa dafa maanaam lu mu def rek am na lu mu ci jublu sëñ Fallu ba muy wax loola nañ ko andi Tuubaa booba am na lu mu yëg moom am na lu mu gis lu waral ñu andi ko Tuubaa ndax xam ne sëñ Tuubaa Tuubaa la ko bëggee ndax sëñ Tuubaa ci biir xasida yi ndax nee na nawetu shukraka la daa daari salaam wa bi gis min waqilaam nee na yow yàlla yéene naa la boobu defagu ko yéene naa la sant fa daaru salaam waaye yéene naa laa sant fa tama Tuubaa naa la sant fa te booba sant gi amagul Tuubaa kon loolu junj na ne kon sant gi dana dem ba àgg si ñu di ko defee Tuubaa kon defe gi ñu ko defee Touba euh, junjub sëriñ bi la moom la sëriñ Fallou feeñal noonu ba defee ko noonu nga xam ne noonu la noonu la ñu ko defee daal di cee boole it nañ koy santee mooy wax alaya shukrahu bi fardin wa sunan farataak na mooy noonu ñu wax ci jàng alxuraan sikkar euh, lele aw ñam ak lépp loo xam ne lu baax la loo xam ne nit mën na caa wut ab yool loolu lañuy noonu la ñuy magalee kon nañ xam loolu te fas yéene bu magal gi dikkee ñu bañ koo jàpp-jàpp ne am mambax la rek ak xumbu xumbu la rek solu la rek wala déedéet waaye ak jaamu yàlla la jaamu yàlla gi mooy mooy mooy sant te sant mooy jaamu yàlla gi gën a ci jaamu yàlla yi moo ci gën a sant yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ko lépp ba ko jéggal naa la sa bakkaar yi tey ak sa bakkaar yi ëllëg yi nga def ak yi nga defagul yëpp ñun ñun ñu dañoo defe ne day toog nag nag dégg dégg daal di noppalu nag ndax kuñ jégal sa bakkaar yëpp te ñun li ñu def lépp bëgg ñu jégal ñu suñuy bakkaar a tax yàlla da ko jégal naa la lépp ñu gis ko muy julli ba tànk yi di nàcc di newi ñu ne ko waaw yow lii lu la ci fekkee ginnaaw yàlla jégal na li li nga def ak li nga defagul mu ne afala akunu abdan shakuran ndax du ma nekk jàmm bi sant yàlla nag loolu lépp ma yàlla defal ndax du ma ko ci sant nag kon sant mooy jàmm yàlla gi gën mag moom la ñu sëriñ Tuubaa woon ñu defal kooku ci bis bii santale ko yàlla ñu ne ñu sant ko ngir dugal gim ñu dugal ci xéewal googu ba yowmal xiyaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi